mais loolu la waaw non je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi euh, te loolu injustice la ñëpp xam nañ ko pour Ousmane Sonko ñëpp xam nañ ne complot la. complot le complot le plus ignoble de l'histoire politique du Sénégal parce que ñëpp te lii lii génn temps yëpp montré na ne montré na ne Macky Sall ci dynamique am la nekk Macky Sall il veut éliminer comme il a dit. si euh, mettre l'opposition xam nga nu ñu ko waxee opposition réduire l'opposition à sa plus simple expression en 2012 il a fait plusieurs choses il a éliminé Karim Wade avant les élections de il a éliminé Khalifa Sall parce que yaakaar naa ne ñooñu bu ñu nekkoon moom du jàll parce que effectivement dañuy polariser un électorat qui l'empêcherait de passer au deuxième tour mais yëmut foofu mu créer parrainage pour filtrer la les candidats supprimer candidature pour wàññi candidature yi parce que foofu bëggul candidat yu bëri ñuy polariser ay électeurs muy dem deuxième tour ci logique boobu la nekk parce que aujourd'hui dafa ragal Ousmane Sonko moo tax tous les moyens sont bons pour mu éliminer Ousmane Sonko mais loolu on fera face duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg parce que nag peuple bi xam nañ ne léegi Macky Sall li mu bëgg mooy opposition ba na am ci réew mi te loolu c'est extrêmement dangereux pour un pays donc ñun coalition Yewwi Askan Wi fi ñu jëm xam nañ ko bu baax joxante nañ loxo te suñu objectif incha allah danañ ànd ak sénégalais. alors Théodore Monteil depuis sànq mi ngi demandé. ñun ñu ngi nii làqatuwuñu ah.